voilà nag euh, defe naa moom fexe na ba ci àddina wërngal képp mu euh, liggéey way wu rafet docteur euh, Nelson Mandela je sais pas ci complicité aussi c'est est-ce que mën nañ ñëwaat ci image yi ñu tëjee léegi nii journal bi comme ça ñu mën ko fàttaliku Mandela lu ñu mën a wax ci moom docteur waaw mën a wax ci moom daal mooy nit. Uh-huh. sànq suba ki ma xëyee moom laay tëjee tey. Uh-huh. mooy sëñ Sam. Uh-huh. day faral di wax ne nit. ci ci naqar bu amee naqar mbaa mu am tiis na fexe ba am ci yiw ba yàlla bu mu ko ci jéppi euh, junior mës naa ko dégg euh, xalifa bu baax bi euh, porte parole mës naa ko dégg sëñ Abdou Aziz mu ne nit bu ko amee nattu bu mel ne jàngoro na fexe ba bu ko ci yàlla jéppi ndax ñooña saytaane leen di yónni ngir nga jéppi yàlla ñoom ñaar boo boolee seen wax da ngay am li Mandela def. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam dafa nekk ci jafe-jafe. Mm-hmm. ci jafe-jafe bi mu mu téye ci dignitéem mu téye ngoram. ñu yow fekk ko fa ne ko génnal. boo bëggee léegi nga génn waaye da ngay bàyyi ANC. bàyyi xeex bi ngay xeexal nit ku ñuul. mun a dee ci kaso moom ma gënal génn bàyyi loolu. ñu ngi muy guddi di négocier ak moom. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ba tey jii fa nga xam ne moom lañ ko doon tëj muy kaso. tey nit ñi dañuy paas di fa dugg di ko seetaan. wallaahi caabi ja sax dañu koy jaay. loolu lan nga ci mën a mooy euh, war-war. nox noxo ci topp. war-war. waaw nox noxo ci topp. loolu lu muy tekki. maanaam bu tàngee. ba tàng. boo muñee dana sedd ba nga liw. wallaahi wallaahi wallaahi kon moom muñ kat muñ kat la mu kat la moo tax mu am euh, lii mu am tey waaw te boo xoolee ni ñu koy célébrer <coughs> tey dañ ne juróom benn minute mhm. ak sept mhm. kenn ku ci ne mhm. na def bruit biir Afrique du Sud ba ñu xam ne def nga ko ndax moom macha allah muy 67. déggal loolu déggal loolu muy équivalent wu 67. 6 ah, ah, ah, minutes 7 secondes. noonu lañ koy célébrer. voilà kon moom euh, dañ koy fay li nga xam ne moom la def. Mhm. liñ ci war a jàng nag ñun. Mhm. mooy xëy sotti baaxut. déedéet. ñun dañoo bëgg 30 ans Sénégal ñëpp am oto. 30 mm. ans ku ne tabax kër. 30 <laughs> ans ku ne takk jabar. 30 ans ku ne yóbbu sa yaay màkk bala 40 ans mënta ne. wallaay mënta ne ñaari xeeti teraanga yii moo am. Mm. da ngay wallaay mbay gar bi waaw mbay boo liggéey bu mu ñëw de bu gar bi ñëwaat ndax eh, ñaari xeetu teraanga moo am mm-hmm. am na koo xam ne yàlla da koo baaxee mhm. day liggéey jëndal boppam kër mhm. jëndal boppam oto mhm. yóbbu boppam màkka am koo xam ne yàlla da koo tëralee day liggéey ba retraité di dem ca jàkka ja mbaa mu dem ca grand place ba di waxtaani doomam fekk ko fi ne ko bàyyi kaay am kër wallaahi bàyyi kaay dem màkka wallaahi oto ngi nii ñaar yëpp teraanga la wallaahi ndax kooka jamono ba muy ñee ay moromam moom dana toog ba ay moromam di ko ñee ndax ñooñu jëndaloon seen bopp oto jëndaloon seen bopp kër woon seen bopp màkk mhm. xëy na seen i doom ña ngi ko safaan woo xam ne bu mu sañoon noppalu te amuñu mujj gu wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi réew mi leen bàyyi yàkkamti mhm. ku ne bëgg a am lu ne tey mhm. te jeexal ko dem Baye Mori Mbaye wallaahi Baye Mori Mbaye mi topp ci Baye Alaaji Mor Mbaye nee na jal ko jeexal ko jélloo la jéppi la wallaahi wallaahi mu boo ko jalee jeexal ko yow rek ña lay jélloo di la suuli dañ lay ko adduna bi mu ne kenn du ko jeexal da jeex ci biir rek. wallaahi wallaahi da ngay jeex ci biir loolu daal moom laa Nelson Mandela muñ na ba am. nit ñi nañu baññee yàkkamti wutu ñu alal wallaahi jërëjëf tey jii donc télévision Futur Média mu ngi rendre hommage ki nga xam ne ni moo di euh, Nelson Mandela euh, ci jàngat rek euh, docteur Massamba Gueye lii mu ci wax mën nañu ko yendoo à méditer la ñuy wax voilà donc bu fekkee min nga parcours Nelson Mandela loo ca jàpp ak loo ca xam rek mën nga koo méditer toute la journée parce que euh, mën na laa jëriñ muñ ak euh, doylu am na solo waaye di xamit nii euh, suñu borom mooy séddalee mm-hmm. man bay garmi baat pa bay Cheikh danaa jox rek ñaari baat mm-hmm. dafa toppul intérêt intérêt personnel mm-hmm. bu toppoon intérêt personnel kon du agsi fii déedéet déedéet déedéet déedéet te dama nangoo ci jigéen ju baax mu ne Amadou Mbaye Garmi. Mhm. muy ajatu xaar may ma jàgg mu ne ma daal dëgg-dëgg. gor su baax. Mhm. lu mu muñ ren te ngorom may ko tax mu muñ ko ren. Mhm. bu déwénee dina ko jox lu ko. kon làmb lu ngor baaxul foofu rek damay rejoindre sama xarit rek. <laughs> ok ma sàmba <laughs> ba ci kanam moo tax daal dëgg-dëgg moo tax daal gore daal ak muñ. Uh-huh. <laughs> lay tay la daal ci sa vie. Uh-huh. soo ci saxee rek mën nga am lu bëree bëri. jërëjëf Mbaye. woon bay garmi kon euh, mu ngoog euh, léegi nag euh, li ñuy def mooy dem fekki kenn ci suñu ay correspondant